li nga xamante ne nii moo waral suspension bi mooy moom ci boppam démb gis nga mu def déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. nit nag boo joxul worma assemblée nationale ki nga xam ne mooy sart yi nga xam ne moom la ko constitution jox muy le président de la république président de l' assemblée wax nañ ko ne ko na ko ak moom pour que ñu régler lii ndax moo gën ñu ñëw fii di xeexakuloo xam nga ñoom bi ñu nekkee opposition. saaga xuloo yàq micro yi te gis ngeen assemblée nationale bi ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu normalé ñu changé lépp du ñu nangu nag nit ñi ñëwaat comme ñoom loolu lañu tàmm toj taabal yi euh, dindi micro yi li tax ñu sursoir mbir mi moom mooy débat d'orientation budgétaire comme ni ma leen ko waxee bii loolu amee bureau bi moom moo réunir en toute souveraineté daanne kat premier ministre bi nga xam ne wegul assemblée saaga na assemblée wax assemblée joxu ko cër je pense que kooku te dañu ne constitution li mu wax dafa ne gouvernement dafa collégial donc ministre am dañu ne balaa ñu koy déglu wala ñuy wax ak kenn il faut que loolu président de la république lijjanti ko ak président assemblée balaa ñëw ñu ci leen léegi nag session bi dinañu ko tëj léegi pour que ñu jàll ci leneen.